xaaxaabal bi tam léeg mu bari lool waaye ku xool jaar-jaaru Sénégal war na xam ne dafay ñëw jàll ay nag lañuy waajal la pour bañ mu bettuñu moo tax ma ni lii war a jiitu mooy suñu réew mi dafa am lu ñu ko baaxee mooy jàmm ak salaam bi fi nekk nit ñi même bu ñu bokkul xalaat am na loo xam ne ku ne war na ko sàmm ci boppam muy jàmm réew mi d'abord muy respecté itam façon dund bi nga xam ne ñëppoo ñee Sénégal ci loolu ñu waaso seetuñu xeet ñu région ñu diine ni ñu ko defee léegi jullit yi kenn ñoo wax fukk mënoon nañu wax te ku ci wax rek dañu koy nangu église bi ñaar wax nañ fii église catholique wax na église protestante wa loolu mooy diversité foog ñuy nangu différence di am doomu aadama yi ñu koy respecté itam ku ne ñu respecté la sa ngëm-ngëm respecté la sa choix ak sa bëgg-bëgg loolu nag dafa laaj ñu dëgëral charte réew mi dëgëral institution réew mi dëgëral euh, démocratie réew mi mooy ñu war a respecté li nga xam ne mooy charte réew mi nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp ñu war ko respecté respecté institution yi représenté réew mi loolu que ñu ànd ci politique bañ ci ànd war nañ ci mën juboo opposition yo majorité ci yam walla noo aligné ku ne war na xam ne réew mi dafa am ay charte mu sàmmante ak charte yooyu doog a laaj àqam parce que noonu lay mën a demee mais mënoon di laaj sa àq rek fu nekk nañ ko respecté te yow doo respecté benn wa wareef boo xam ne tegu na sa ndodd loolu tam mënul nekk donc nag loolu ñëpp la war ñu fexe ba jàmmoo boobu nekk ci Sénégal ñu mën ko dëggal mun koo yaatal ndax jamono ji ñu nekk suñu borom moo ñu baaxee ñu am wërsëg bu bees bu feeñ ci réew mi muy pétrole muy gaz ba ci or boo xam ne léegi macha allah commencé na yaatu loolu nag saa yu feeñee ci réew coow li dana bëri ndax ñu bëri danañ bëgg a ñëw indi jeexi jaaxa indi ay jafe-jafe mooy li ñuy wax léeg nga gis ci géej gi piraterie bi commencé bëri ah terrorisme sax mën na ci dugg loolu dafa dafa laaj ñu waajal ko waajal ko ci l'armée bi ak ñi nga xam ne ñoo yor force de défense et de sécurité pour que alal jooju nekk njariñ si askan wi que looloo tax ñu jëngatu mu bañ a nekk luy ñëw rek romb ni ñu nekk ci ay xiroo ak féewalo pendant que ñeneen di koy mën a jëfandikoo looloo tax ma ne tey jii dina baax ñu waxtaanee aussi waxtaanu politique kuréelu politique yi nag euh, am na lu ñu tàmbali woon si jaloog ba la ñu génn si lañu defee woon élection maire au suffrage universel ci demande opposition si la ñu waxtaanee woon le statut du chef de l'opposition tey jii war nañ mën a yeggali euh, sumb boobu si lañu war a waxtaanee itam élection yi nuñ siy demee ndax li ci biir ñu naan parrainage bi war nañ ko améliorer ñu naan déet. droit civique ak politique yenn acteurs yi ba tey ñu xool ci biir démocratie ak respect des institutions lan moo ci mën a nekk luy tax ñu gën a dox ci li jëmale suñu démocratie kanam loolu yëpp ku jéggi ñoo ko war a mën waxtaanee ak acteur dialogue bi dialogue bi nag du ñëpp ñooy bokk benn néeg rek di waxtaanee lépp parce que du mën a sotti waaye amoon na ay commission commission politique dafa am ñu ko ŋànk seq ko ñoo war a waxtaan seen biir suñu paree jébbal ko président la république euh, commission économie maanaam ñu yor koom-koom bi ak waa syndicat yi ñu yor social bi ñu xool foofu tam yan jéego lañ fa mën a def commission bi sàmm environnement ak li demee noonu naka noonu ak yeneen commission yi ma fi lim sànq su ko defee bu yooyu yëpp pare na ñu taataan ko mën a dajawaat ci benn plénière pour xool lan la ñu génnee muy jukki boo xam ne waxtaan bi moo ko jur te ñëpp war ko mën a respecter ngir suñu réew gën a mën a jëm kanam donc loolu mooy euh, moo waral dialogue bi jaloog bi du dialogue gu xamoon nañ koy waxee ci wolof baara yëgoo wala du loolu waxtaan la ci li nga xam ne ñoo ko bokk suñu mënee juboo si kàddu yi mooy li gën luñ mënul juboo lépp loo xam ne am nañ ko si luñ mën a juboo comme niñ ko daan defee di avancer progressivement ñu xam ne bii jaloog juraat na lii ak lii ak lii si lii jëmale Sénégal kanam lépp nag ngir jàmm gën fee sax ngir euh, naataange aussi gën a yaatu ñeel waa réew mi donc ci ci gàttal loolu laa bëggoon wax ginnaaw bu ma santé ñi fi teew ñëpp di représentant ay kuréel kenn ku nekk si yéen yor ndomb tànk boo xam ne ci lay wax si turu réew mi ah, ma leen di sant ndax boo nekkee ci réew ñu soxla la yaakaar naa nii ngay def ñëw wax sa xalaat wax la nga xalaat ne nii la war a baaxe waaye boo ko waxul fii foo koy waxee soo bëggee mu yaakaar naa fi koy fajee nga koy waxee su ko defee bu réew mi yëpp toogee kuréel yëpp toog la fi génn loolu rek mooy lii mën a nekk njëriñ ak avancement ci Sénégal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu may ñu dialogue bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf waaw Assane at Assane xaaral ñu waaw waaw d'accord Assane xam nga Assane doucement nañu déggoo Assane nañu déggoo parce que nu sommes au moins ñeenti téeméer ñeenti téeméer bu fekkee ku ne day jóg wax du sotti il faut quand même qu'on fasse preuve de discipline et de compréhension parce que kenn ku ne dafa ku fi toog ku ne s'il vous ku fi toog ku ne da fi ñëw si tur turu kuréel ku fi toog ku ne si turu kuréel nga ñëw kenn ñëwu fi si si boppam rek kon ñii diine ji moo leen fi indi ñii politique moo leen fi indi ñii patronat moo leen indi et te kuréel bu ne am na ay ñu leen di représenté donc noonu lay demee après nag ñu xool liggéey bi du tey lay tàmbali tey dañuy waxtaan salaamaaleykum ku nekk ubbi xalaatam ngir ñu taataan li ñuy tuddee terme de référence parce que chaque fois maa ngi dégg gars yi naan terme de référence yi génnagul mais nu muy génnee toogaguñu parce que du décret bu ñu jël rek ne voilà terme termes donc ce n'est plus un dialogue dialogue bi man damay wax samay xalaat mooy lii ma leen ubbil déglu leen ngeen wax seen i xalaat ñu taataan après loolu ñu dajale xalaat yooyu pour génne nag les vrais termes de référence du dialogue ko defee dialogue bi doo ko tàmbali donc loo gis rek euh, méthode la ak organisation ak démarche donc euh, bon Yoro Dia continuer liggéey bu ma nee na président di joxe parole bi joxewuma dara il faut nga xool parole yi la jox surtout que liste bi xaw ma ndax pare na am déet. merci monsieur le président.